alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi nu bokk sant borom bi subhanahu wa taala seer namul benn buur bu war a jaamu bu dul moom noo ngi baalu àq ñépp te di leen baalu àq tey ñaan buur bi subhanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñun ñépp ñoo ngi tàmbali sunu nuyoo ak sunuy cant ak sunuy ngërëm ci alxalifatul am li taifa almuridiya cheikh mohamadinil muntaqa di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te ànd ak wér du nuyu xalifa kër sëñ omar muy sëriñ malik du nuyu jëwriñam ja muy sëriñ cheikh màggat waaye di nuyu sëriñ xalifa mi nga xam ne moo yor kaddu kër gi ak mbooleem ay rakam ak mboolem jabootug cheikh omar gépp di ndokkeel mbokki jullit yi nga xam ne ñoo jóge ci barab yu sori ñëw fii ci barab bi tey ngir joox fi sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa taala lépp luñ fi ñaan wala ñu dagaan ko suñ borom nangul ñu ko bokk yi tey jii nag feet la feet goo xam ne xale bu ndaw bi ak ku mag ki ki am ak ki ñàkk ñoom ñépp ñoo ci yem barab bii mënoo leen cee xàmmee mënoo cee xàmmee ku am mënoo cee xàmmee ku ñàkk li ko waral nag mooy day lu ñëpp bokk ca li ñëpp bokk defe ko fan ko bokke lislaam da koy gën a day gën a taaral lislaam bokk yi bisub tey bii bisub jaamu yàlla la ak ñaan bisub saafante la bisub bëggante la bisub soppante la bis la boo xam ne jullit yëpp war na ñoo dox sol seenu dàll bépp diggante boo xam ne gis nañ ne muy diggante bu yàq ñu defar diggante boobu ngir màggaayu bis bi bis la boo xam ne mbokk yi bisub lekk la bisub naan la bisub gorol nit ki ci sawara la mbokk yi liñ bëgg fàttalante ak yéen tënk ko ci minute yu gàtt ngir jataay bi mi ngi jëm ci jàmm jàmm moom lan bëgg a fàttalante ak yéen ngir fii réew mi toll ku ne xam na ne suñ réew mi ñu nekk jamono yi ñu génn réew mu ñàkk jàmm la réew mu ñàkk jàmm nag boo ko déggee mooy ñi séq réew mi ñi koy laaj ak ñi ko yor kenn ku ci nekk di xëccu jëma ci sa bopp ba tax ay bakkan di ci rot ay nit di ci gaañu wala ñu ciy damm loole kon jot na tey jii nag ñu xool ba ban lan lan war a def ba réew mi dellusiwaat ci jàmm mbokk yi fii ñu dajee tey buñ amul woon jàmm duñ fi mën a daje julli li muy baax baax aj màkka lu muy baax baax di ay farata bu fekkee ne fit da am na wala jàmm amu fa du neex a def barab bi ñuy joxe tey jii iidul fitri ji bu fekkoon na jàmm amu fi duñ ko fi mën a joxe kon jàmm mooy léppi àdduna ak allaaxira nan xam ne li nga xam ne mooy moo boole mbooleem jullit yépp benn baat la ginnaaw baat boobu nag mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu baat boobu nag moo taxoon cheikhul xadim radiallahu taala anhu waxoon ne fala taadu man raaytum faax yuxriju laa ilaha illa allah ku ngeen gis aw làmmiñam di tudd illa allah bu leen ko def am noonu kon baat bu ci la jàmm di tàmbalee jàmm nag mbokk yi moo war a boole jullit yépp jullit bi ci ndakaaru wala jullit bi ci sénégal sax laa bëgg a wax ak ba beneen jullit ci biir réew mi yépp fu mu mën a nekk ba ci bitim réew li leen yi boole mooy jàmm rek moo ñuy boole moo tax lislaam bi mu dikkee li njëkk a def mooy baatub salaam boobu dañu ko wattuloo jullit ak mbokkum jullitam bu kenn jalgatee ki am kàttan bu mu tooñ ki nga xam ne amul kattan ki néew doole tamit bu mu jëfandikoo dooleem bala ko neex mu def lislaam dafa ñëw ci ak digg doomu ñëwut ngir indi xeex walla luy waral xeex lislaam du diina ju ñuy toroxal doomu aadama wala muy diine ju ñuy ji doomu aadama wala muy diine maanaam wane sa doole wala sa wala sa tedd nga lislaam ñëwut ngir loolu bokk yi jàmm nag dafa am ay wàll wàll yi jàmm bi ci njëkk mooy jëmmi doomu aadama yi ak boppam nit ku ci nekk da ngay fexe sa jëmm am jàmm mooy bay baynal abdi wa nafsihi soog di def nag bay ne baynal abdi wa baynallah fexe ba am jàmm sa diggante ak sa borom gannaaw bi nga amee jàmm sa di sa jëmi bopp yow jullit bi na nga fexe ba am jàmm sa digganteek sa boroom waaye na nga fexe ba am jàmm ak sa digganteek doomu aadama yi soo ko defee yàlla mën na laa dimbale ci lu bare bari moo tax lislaam ci ak maanu teem mu ne waqaatilu fi sabilillah alladina yuqaatilunakum lu mu ca teg wala taatadu bu ngeen di xeex na ngeen xeex ak gaa ñi nga xam ne dana ngeen xeex ak yéem waaye su boobaa bu leen jalgate kem lan leen gaañ na ngeen leen gaañ ñu tol noonu buñ patalee sa bët na nga patal seenu bët ca bul jàll ca nopp ba buñ daggee sa nopp nanga dagg seenu nopp ca bul jàll ca lenn buñ dammee sa bëñ kazalika bu la jamee nanga nga natt jam jamba ba fa mu toll nga fayu kon lislaam lislaam li mu woote mooy ak maanu ak jàmm moo tax suñu borom waxoon loolu daane ne képp koo xam ne dangay ngeen da ngaa nekk wala nga indi lu bokkut ak loolu na nga xam ne la nga def yaa indi sa bopp te na nga ragal ya wat na xam ne ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dana dajale doomu aadama yi mbokk yi doomu aadama yi ci seen wuutee ku ne xam ne ne ñu woo jàmm lan mbindee fi doom mbindee fi suñu borom yi mënuñoo dund ci kaw suuf mukk lu ju danoo jàmmoo kon réew mi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk liy indi jàmm ci biir réew mi jullit bu ci nekk am nga ci responsabilité pour pour dox ko bu dee ku mën a wax na wax su dee ku man ku mënta wax te mën a bind na bind su dee ku mën a diisoo tamit ngir jàmm am war waram la lu waral loolu mooy saa yu réew mi ñekk ñàkkee jàmm population bi dootuñu am jàmm ci xam ngeen ne jàmm mooy tax nga tëla julli mooy tax nga tala woor mooy tax nga tala aj mooy tax nga tala def looyu def ci lislaam borom kër bu këram amul jàmm du tala lekk du tala naan borom kër bu këram amul jàmm du tala lekk du am du tala naan boromum penc bu penc mu amul jàmm du tala lekk du tala naan loolu mooy waral ne jàmm ci la lépp xaj kon lépp loo xam ne ñu ngi ko war a yëkkati mu nan a xañ julli di jàmm loole jullit yépp war nañ cee war nañ cee taxaw ca fii jamono toll suñ demee ba réew mii ay bakkan di ci rot ñii di ci gaañu ngir ngir lan ngir pouvoir ñi bëgg réew mi na ñoom danoo soxla réew mi kenn du leen xaj réew mi su boobaa nag lépp loo xam ne day jur la aw ay ka jiite réew ma noo koy moytandiku ña jiitewu réew ma tamit nan koy moytandiku ngir lan wa wattaqu fitnatan la tusibanna di zalamu minkum xaasa ay du yàpp du yam ci bopp boroom ay du yam ci bopp borom mukk moo tax fitna fu mu amee rek problème day daal di am moo waral kon lépp loo xam ne suñ ci doxee mu am jàmm loolee dañ cee war a dox képp koo xam ne tamit am nga kàddu ci sa kàddu jote ci jote ca boo waxee ñu déglu la war ngaa wax waaye tamit sooy wax bul wax ngir féete ci benn parti wala ñu xam ne yow diw moo tax ngay wax wala diw ngay faral sooy wax na nga waxal yàlla tey wax lu indi jàmm ku mën a doon nag nga xam ne yaa ak kàddu ka ngay waxal ci lu mu mën a doon fii réew mi tellu booy wax la ngay wax na doon lu indi jàmm ci réew mi waaye bu doon loo xam ne day indi aw ay ci réew mi bokk yi ñu xam ne lislaam bi mu dikkee dafa sonn ci lépp loo xam ne day waral jàmm ci kaw suuf te am réew bu tollee fii mu toll ña nga xam ne seen baat jote na ca ña ña réew ma wala ñay xëccoo réew ma ñooñee waruñoo noppi saa su ne danoo war di wax ngir lan ngir ak dal am te xam ngeen réew yi nga xam ne guerre am na fa réew yooyu ba àddinay tukki ngir ñu suqali seenum réew day jafe fan yi ngeen génn am na benn continent ci Amérique jàkka ju mel nii ñuy julli di naafila benn waa dugg ca biir jàkka ja fekk imam bi fa mu sëgg di sujjóot mu jam ko ñaari jam-jam jàkka joojee koroog amuñu jàmm ma waral ma ima imaam yi dana war am ay garde corps ni nga xam ne noonu la président bi amee ay garde corps parce que jamono moom moo toll foofu nit ñi ci boppam am na ñoo xam ne ñi ngi ñëw ci jàkka yi di julli si waaye la leen la fi indi yàlla indi wu leen fii léegi-léeg nga gis ku dugg ci jàkka taal bomb wala yu mel noonu kon nan ne bàyyi waale xel loolu ci suñ biir mbokk yi diiney lislaam diiney jàmmoo la diinay bëggante la diinay aqida la diina joo xam ne képp ku ne ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jël na la taf sa taf ci boppam su boobaa nag yow jullit bi ci boppam na nga xam naka ngay téye loolu ma waral yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ne ku xëy ci yéen bëgg a wax ak yéen ca waxut baatu asalaamu aleykum bu leen ko faale man bada bikumul kalaam xabla salaam fala tujibuhu ku ñëw ci yéen bëgg a wax ak yéen ca waxut assalaamu aleykum bu leen ko faale loolu mooy diine joo xam ne diina ju ñëw ngir jàmmal jullit yépp lay doon kon maa ngi dénk saa bopp di ko dénk nan fexe indi jàmm ci réew mi jullit yépp nan jàmmoo te bëggante te soppante ca wóolante ca kenn ku ci nekk la nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa sa moroom sa jullit may dénk ñi ñi moom ñi nekk ci bopp réew mi ak ñi xëccoo réew mi ñu xam ne nguur kenn ku ci nekk bu ko yàlla dogalee ci sa jëmmi bopp da ko am jërul rey nit jërul tëj nit jërul duma nit jërul def loo ñaaw nit ndax loo fi gis ëllëg des koy fàttaliku te suñu nee na yàlla moom am nguur mooy seet kum neex mu jox ko qul allahumma malikul mulk tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al innaka ala kulli shay'in qadir moo tax jullit bi ci boppam lu ko yàlla dénk pouvoir ba mu mën a doon na bàyyi xel ne bisa ngi ñëw benn yàlla jële ko ci loxoom jël jox keneen wala mu faatu pouvoir ba jeex ñi nga xam ne tamit dañuy wut réew mi nan ko wute ci yar wute ko ci ay teggin bañ di toj bañ di yàq bañ di dóor bañ di def loolu ndaw ñi nga xam ne ñooy sañat seet ku leen neex ñu tànn ko na yaa ñu doy lislaam may na leen ko waaye nag ñoom ndaw ñi maa ngi leen ñuy dénk ci dénk sama bopp nan bàyyi yàq bi yi toj bi bàyyi taal bi te xam ne loolu ñun suñu alali réew la buñ ko yàqee bu àllëgee keneen ku ñëwi day defaraat ca lépp loo xam ne dana waral naataanga suñ réew mi am nattaange loolu ci lan war a dox ca xam ne réew mi ñu nekk ëllëg ndaw ñi képp ñoo fi mujj ndaw ñooñu nag nan delleesuwaat seenum njàng delleesuwaat seenum xel ca xam ne yàq baaxu ca lislaam da koy tere toj baaxul lislaam da koy tere yooyu yëpp dara baaxu ci te lépp lu indi jàmm moo gën loo xam ne indiwul jàmm ñi nga xam ne dañoo ne ci réew mi yàlla teg leen ci bopp yi nga xam ne ñooy atta réew mi nan maanu ci atta yi nii atta doomu aadama yi te kenn ku ci nekk lay sa àq ci atta ñu jox la ko yonent bi sansam nee na bu yow man xiyaamat akbar benn attakat bu diggee àjjana ñaar danañ dugg sawara moo tax wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaa'ika humul kaafiruun fa ulaa'ika humuz zaalimuun fa ulaa'ika humul faasiquun ñett yooyu dong ñu am képp ko xam ne nga atte loo xam ne yàlla attewu ko benn kéefar nga wala ab tooñkat nga wala ab faasix nga kon justice ci boppam ñoom it ci boppam nan bàyyi xel ëllëg ca xam ne kenn ku ci nekk danga nga taxaw sa kanam sam borom subhanahu ca taala te kenn ku ci nekk bu ëllëgee bu fekkee ne la nga defoon da nga ko defoon ngir sa bakkan wala ngir parparloo wala ngir am fu foo bu ëllëgee danga xam ne yàlla rek ay yàlla dëgg doo ngay dëgg te képp ku saxul ci dëgg soo ëllëgee da nga ko réccu alxaqu xaqun laa yanqalibu baatilun wal baatilu baatilun laa yanqalibu xaqaa dëgg dëgg lay doon du sa pour ñi caaxaan ay caaxaan ay caaxaan lay doon lu soppar ñu mukk doon dëgg ku sax ci dëgg nag donte dañ caa wéet bisa ñëw dañ ca wéttiliku ku ne ci sa bakkan ne ci lu la neex ñépp naan la yow a ngay tëbaka dal bisa ngi ñëw danga xam ne du yow bisa ngi ñëw da xam ne du yow kon maa ngi kay fàttali ñëpp di ko dénk ñëpp rawatina nag ñi jiite réew mi fi ni mujjantale bokk yi ñu bàyyi xel ne li indi xeex di indi xuloo dégg nga di indi revert ak yu mel noonu dara warulu ko lu dul ak tooñaange lay doon wala ak ëpp doole wala yu demee noonu waaye dañ xam ne innal quwwata lillah doole yàlla képp moo ko moom loole nag jàmm bi bu ko xamee dana mën a góorgóorlu ci diggante borom subhanahu wa taala xëccoo baaxut xeex baaxut waxante lu ñaaw baaxut luy tas mbooloo baaxut lu leen yi teqale baaxut luy waral ak mer baaxut luy taxit guerre am cim réew baaxut loolu lépp nag ku dib jullit danga caa war a góor góorgóorlu ca bañ ca bañ ca bañ lépp lu ko indi nga fexe ba yow doo ca dox doo ca wax te koo dégg mu di ca dox mu di ca wax nga fexe loolee mu dakk ca moom loolu mooy tax ñun ñu am jàmm kon mënuñoo dund dund gu neex wala dund gu am bànneex lu dul danoo am jàmm ca réew yi bu amul jàmm population bi du am jàmm kër gi bu amul jàmm borom kër gi du am jàmm penc bi du amul jàmm sëriñ bi du am jàmm ki jiite mbooloo mi wala jullit yi wala tariqa yi yu mën doon bu ñooñee amul jàmm moom du am jàmm kon lépp luy tax nit ñi am jàmm jullit bu ci nekk dee ci dox di ci wax ca yàlla rekk tax yàlla noonu yàlla jéggal yàlla noonu ko yàgg a fekke yàlla yàlla nangu suñu koor yàlla na yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar lépp loo xam ne def nañ ko ci ay rëcc rëcc ci koor gi yàlla na ko suñu borom yàlla nañu ko suñu borom noo ngi ñaanal suñu kilifa yi suñu borom yàggal leen fi lool ñoo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha di ñaanal Serigne Malick di ñaanal Serigne Cheikh Magat ak Serigne Khalifa ak mboolem njabootu ak Serigne Omar gépp yàlla na yàlla guddal feer seen fa ca leen jullit yi nga xam ne danoo bokk jullee fii tey képp koo xam ne juga nga fi yàlla na yàlla far say bàkkaar yàlla na la yàlla jéggal yal na la yàlla may fan wu gudd yal na la yàlla may wër yal na lu yàlla may wërsëg yal na yàlla nangu suñu xaraka nangu suñu sakanaat nangu suñu lépp bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxfirullahu lana wa lakum wa li shaari lmuslimina amin kullu aamin wa antum bilxayri wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu